ci si nasaraan moom laa leen bëgg a faram ci wolof mooy maanaam suñu suñu ñaxtu dafa bokk ci visite si ci euh, euh, ci li ñuy wax itam boo xam ne ñu ngi ciy dugal te faju bañ ca war a faju faju wuñu noonu te itam boobu dem nañ ba remarqué si ni dafa am ay surfacturation yi am diggante itam bi at at at at at yi convention yi ñu ngi dugal si Italie dañuy jaar si suñu gannaaw dem siñe ji ko te duñ si associé les délégués di personnel bu ñu paree indil ñu ko ba ñu demee ba toog ak ñoom ne leen xamal leen ni itam bi baaxul pour personnel bi dañoo jaaraat si suñu gannaaw dem signé waat itam bi renouvelé waat ko pour un an ñun nag suñu position mooy mënoo yor 3000 travailleurs dinañ ci ñëw 3000 travailleurs yoo xam ne dañuy cotiser si itam am ay représentants du personnel. ñu defal la mise en demeure de l' inspection du travail bi wax ni yow boo weesoo nombre de travailleurs bi da nga war a dañ sa itomu bopp nga bañ koo def ngir rek bañ a ñun ñun de à niveau xamuñu ndax direction bi ñu ngi cotiser si IPM bi wala copie cotiser wul si IPM bi bu doon gestion paritaire la def ñun bu ñu génnee ci personnel bi gis ñu moom mi ngi def ay ay efforts si si ci ci ci cotisation yi dinañ ko mën a laaral travailleurs yi mais fii ñuy wax ak yow nii. personne d' entre nous délégué du personnel mënul wax ndax patron bi ñu ngi cotiser wala def noo tay la wala tay ñu ngi koy invité nag ñu ngi koy invité le plus rapidement possible loolu du man maa ko wax travailleurs yi yéen a ko wax nee nañ bëggatuñu Ridwane ci biir kër ji bëggatuñu Ridwane ci biir kër ji beneen yëg beneen yëg wax mooy comme nga xam ni chaque dañoo am droit ñu defal ni ko def nañu cinq ans cinq ans yoo xam ni si diggante bi rien que rien que diggante diggante décembre diggante décembre ak janvier ba février mars li dee si suñu camarade yi nekk si biir usine bi dañu war a tax wax naa ko inspecteur bi nga xam ni mooy ñëw di inspecter si biir Patisen ma ne ko lii dafa war a tax inspection ak ak ak caisse de sécurité sociale mën dugg si biir kër bi xool lan moo lié dese yooyu lan moo lié dese yooyu. lan moo ñu dese yooyu ak nit ñooñu parce que ay jeunes ay jeunes yoo xam ni ñu ngi ñu ngi seen seen digg dënd ñoom ñoo fiy bàyyeekoo te ñun ñi dañoo dem ba tiit si suñu suñu suñu suñu situation donc mënatuñ fee nekk di nëbbal patron bi. SAF ñëw na fi moom moo doon suñu ancien employeur c' est vrai que ni on a un nouveau repreneur vraiment daa am leen yoo xam ne tamit dinañ ko wax personnel bi mooy commencé woon na teg ay acte ay signal yu tax ñu ne kat ñun ñi amoon nañu espoir waaye dañ na parce que promesse non tenue soo demee boo wax ni délégué du personnel yi dootuma dootuma waxante ak yoon ci décret waaye par voie loolu du respect du respect ñun dañoo bëgg képp koo xam ne investisseur nga nga ñëw Sénégal di investir nga jox travailleur sénégalais yi ak cër parce que cër boobu boo ñu ko joxee dinañ la defal ay résultats absence de politique sociale gis nga c' est la première fois dans l'histoire man waxuma ancien ancien ancien régime bi wala ancien système bi fi nekkoon mooy benn buur mooy dund politique sociale. daanaka partisan ñun ñoo deewoo ci suñuy biir ba wutal suñu bopp ay terrain ñu ñoo deewoo ba suñu biir ñuy ñafe di dajale suñuy dërëm ak suñuy ñaar ba am suñuy terrain wu bopp patron bi musu fee dugal un franc Mali un franc Mali musu ko woo dugal donc bu ñu toogee fii di réclamer politique sociale déjà mun nañu wax ci bilan social boo leen ma laajee bilan social entreprise bu normal da ko war di def mais bi mu commencé am partisan yàggul defagul sax quatre ans wala cinq kon donc il a fallu des mises en demeure yoo xamni mise en demeure li ma jaaxal mise en demeure bu inspection di def patron inspection inspecteur bu ko defone sax ñun buñ ko wo téléphone bu jël y a tellement de problèmes dans les entreprises ñun ñoo fipp di fexé di fexé indi inspection muy ñëw pati mais bu njëkk inspection pour ñun de ay délégué lañu on a autant de mandats possibles mais l'inspection, inspection tant que climat social bu tendu amu fi rek doo gis inspection mu ñëw fi man damay lancer appel à son excellence le président Diomaye Faye de l'inspection du travail monsieur le président vous avez été vous avez été syndicaliste comme nous monsieur le président de la république syndicaliste ñi comme ñun dina comprendre ñu dañoo bëgg réformer inspection du travail ñu tuddee ko police du travail mu am les mêmes prérogatives que police centrale wala gendarmerie du mën a jàpp patron yu si kaso parce que duñ ko defulee di ko yóbbu si tribunal d'instance yi ñuy dawloo procédure yi ñu leen di gagné ñuy bañ fay nit ñi di def appel contre appel loolu c'est anormal di fa toog muy dox le que les les les investisseurs ñun amuñu benn problème ak ñoom amuñu benn problème ak ñoom ñu saluons vraiment euh, ce le le son son son le roi Mohamed Mohamed VI ñu ngi parce que xam nañu ni. moom jullit la àqam mais gis nga li xew bii Pakistan mooy catholique il était venu pour bien faire mais il faut le reconnaître les anciens vautours de monsieur Omaïs nga xam ni ñoo tax ñoo tax kër gi daal di nërmeelu parce que ñoom la joxuñu joxuñu amuñu nit cër graaw nañ ñuy soxotee te amuñu xam-xam bu ñu amee xam-xam ñoom muy Ahmed Akel je le défie muy Saba Amaes bu dee am nañu xam-xam nañ dugg si nañ dugg si biir si biir si biir production bi ñu wax ñu machine yi ni muy dawee ñoom seen xaalis la ñu am di ko investir te ils ne sont plus actionnaires majoritaires ndax waroon nañu gis cadeau yi ñëw même pas à l' espace deux mois mu jël cinq millions si emballage perdu yi may ko travailleurs yi soxlawuñu ko sax dañuy waxante dëgg emballage perdu yi ñun ñoo ko moom ñun travailleurs yi ñoo moom emballage perdu yi emballage perdu yi si la ñuy jël di ko def di si teg politique sociale bu dëgër dans l' entreprise ñoom nee nañu ay repreneur ñu jël kër gi dañ koo jël si ay difficultés on a dit ne disconvient pas y' a beaucoup de choses yu ñu doon métti. muy IPRES caisse de sécurité sociale nee nañu régulariser nañ ko c'est normal parce que pacifié ak actif yi dañ ko war a fay parce que bu ñuy jëlee usine bi xam nañ ne usine si jafe-jafe lañ ko jëlee te nag ñu ngi wax rek bi son président le son excellence le président de la république le représailles bu am fii bi Patisen oh c'est lii signal fort la représailles bu fi am de la part de la direction générale dañuy bañ li Seboya woo amoon am fa ñun il faut que ça soit clair ñun ay muur nee nañu dëgg ñu jàpp bu ñu puus ñuy dem si mbedd mi bu ñu puus ñu commencé seen yooyu ñuy def seen demande d'explication yi seen licenciement yi ñuy def de manière abusive nañ ko arrêté li ñu métti si biir régime bi mi ñu métti si biir régime bi bëri na. bëri na trop trop trop trop ba nga xam ne tey travailleurs yi ngay gis nii yëpp dix ans on a presque benn mise en benn mise en demeure benn mise en demeure buy wax ci dix-neuf points 19 points 19 points wax na loolu yëpp inégalité salariale yi convention IA convention du secteur juillet 1800 1958 lañ ko gëj a xaatim le fait que usine bi si convention collective la convention commerce la ñu dugal. ñun ñun ñun nekk si production ñu dugal ñu si convention commerce xam nga tax parce que convention IA IA bi dafa obsolète convention commerce bi moo ëpp barème bi moo ëpp bu bu IA bi alors que IA personnellement li ci nekk si avantage ñun ñu war koo xam moo waroon tax état di fexe ba réactualiser secteur euh, convention euh, IA bi ñun liñ ciy wax bëriwul ñun liggéey rek la ñu bëgg ku fi nekk 14 ans c'est la première fois dans l'histoire de Patisen travailleurs yi Patisen yi woo média daal di wax de manière directe te on prend toutes nos responsabilités toutes nos responsabilités on le prend luñ si bañu bañu ñu ko ci il faut développer la la la meilleure solution direction du sérieux du jàkkaarloog délégué daal di ne damay wax ñun l' administration elle est écrite gis nga nañu waxante dëgg investir toujours dafa am tâche ay couche d' investisseurs yoo xam ni sénégalais bu ko am comme patron rek torox nga dañu waxante dëgg. maire yi mosuñoo mosuñoo mosuñoo wane brutalité mais xoolal fi boo duggee si institution financière yi nangootuñu lebal benn agent Patisen te loolu suñu direction générale bi ñu ko indi moom moo ko indi ndax booy yi dañuy dem ba mënatuñu koo supporter ñuy démissionner di dem seen yoon ñun dañoo am suñu courage bravé wuñu la maire dem di dem Barsak ba Barsa wala Barsak ñun suñu toog état des Sénégalais di liggéey kon nan ñu fay suñu parce la direction générale manque de considération vis-à-vis du personnel dañ ñoo respecte et le respect vraiment doit être réciproque Nous devons respecter, nous devons le respecter. parce qu'on ne peut pas concevoir nous mënuñu respectons le code du travail parce à chaque fois dañuy nous de notre service notre service dès que nga jël affiché publiquement ça devient un droit une source de droit donc nous, avons jël affiché ko au dernier moment c'est ce n'est plus possible avance portée c'est inadmissible nous jël aussi nga les samedis permettre de faire des rotations au dernier moment par la seule d'une seule personne la sœur de l'ancien président nous ñëw ne ça ne l'arrange pas nous ne donc ça n'arrange personne on a vu ça. un bon directeur, un bon responsable doit agir avec diligence, doit respecter les travailleurs. Praticiens, nous des retenues sur salaire. y accident des accidents de travail, nous les commerciaux, on le sait. Nous accident des de travail, des produits détériorés, nous de ces prix confisqué pour le de salaire, c'est interdit par la loi on a resté plus de 7 mois sans prime Des nominations par complaisance on a fait 7 ans 10 ans les mêmes salaires les mêmes statuts les mêmes catégories li gën a aussi même catégorie nga bokk ak nit même catégorie salaire plus que c'est inadmissible ce n'est pas du droit ce n'est pas du respect donc nous, allons négocier on lance un appel à Almada le propriétaire di jëm ci kanam te kër gi war naa mën a dem ci kanam il n'a qu'à demander les informations à la base ñoom ñoo mën a joxe information bi parce que les mêmes kat ñu ngi nekkoon les mêmes causes produire les mêmes effets li tax ba Orange jaay kër gi duñ continuer ak moom les mêmes systèmes les mêmes kat noonu lay demaatee te moom tam il sera obligé de jaay ko te il sera à ko jaay. problème même boîte une même boîte euh, ci même année bi mbala deux ans après ça va être trop compliqué beneen propriétaire dootu ñëw di ko jël donc je leur lance appel ils reviennent à de meilleurs sentiments qu'ils parlent avec les délégués avec la base pour avoir les informations fiables pour mën a doxal kër gi ni mu ko doxee je vous remercie merci beaucoup